koor gi fii ci résidence Xaadim Rasoul bi nekkee ci Touba xalaat la ak ndigalu Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou xalifa général des Mourides depuis 2018 di événement boo xam ne dañ koy diffuser en direct ci chaîne de télévision yu bëri ak presse en ligne bi loole moom moo tax Hizbut Tarqiyyah bi nga xam ne moom lañ denk liggéey bi seen direction général bi jël ay matuwaay yu am solo yaatal liggéey bi jël mboole matuwaay ci war ngir diffusion bi mën a yaatu. direction général bi nga xam ne moom ci liñ aju muy direction générale bu Hizbut Tarqiyyah jël matuwaay yu am solo ngir euh, jàppandal. Euh, jàppandalu ñu jumtukaay yi nga xam ne ñoo mën a tax ñu mën a mën a ñu mën a couvrir loolu loolu lu ci jiitu mooy euh, teg dispositif boo xam ne fii ci kër gi dina permettre ñu mën a euh, couvrir événement bi maanaam dispositif télévision ay caméra ay régie ay professionnels yoo xam ne dina tax ñu mën ko couvrir ci qualité bu am solo ba pare teg dispositif de transmission yi nga xam ne tamit lu mel ni internet lu mel ni ay faisceau fexe ba. Euh, signal bi ñu mën koo joxe mën koo tas mboolem fu télévision nekk ci biir réew mi ak bitim réew ñu mën a fexe mu jot ci. salle bi nga xam ne ci la ñuy amalee njàng mi organe de presse yi ñëw ngir bëgg a couvrir événement bi mënuñu fee nekk ñoom ñëpp. moo tax ñu nosee ko noo xam ni dañuy génne benn signal bu neutre. mboolem organe de presse ak fépp fu ñu mën di nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew daañu am possibilité mën a diffuser événement bi en direct te duñu déplacé wu. xam ne yemul yemul nañu ko ci ci ci murid rek waaye fu mu euh, jullit nekk rek te te bëgg a dund euh, événement bi. moom jekk nañ ngir ngir jox la signal bi kon day signal yu neutre yoo xam ne dañ koy dañ koy génnee muy RNTP ñi nga xam ne tey faisceau la ñu soxla ñu génne leen signal faisceau ñi xam ne ñëpp ñoom ci YouTube lañ mën a jël ngeen mën a mën a jàllale seen liggéey kon yooyu yëpp day liggéey boo xam ne disponible na. fii ci Touba ci résidence Khadim Rasoul am na fi salle boo xam ne dañu ko jagleel presse bi ngir ñuy mën def seeni diffusion mu am internet bu am doole ak lëkkaloo goo xam ne am na ci liggéey bi mu nekk booloo goo xam ne ñëpp ko rafetlu. liggéey bi nga xam ne sëriñ bi digle na ko ci résidence bi te Hizbut Tarqiyyah di ko jiite ñu ñëw ànd ñoom liggéey bi ci ku ci nekk indi sa matériel. jël lien yi nga xam ne génn nañ ko mu doon ay liens yu neutre fas yéene ko ànd ak ñoom ci wasaare yiw wi nga xam ne mi ngi bàyyi ko fii ci kër gi ci di ko def ay direct waaye it di def ay reportage di dikk di monter di partager entre ñun ñi nga xam ne ñooy nekk fii entre technicien waaye entre tamit organes yi nga xam ne ñoom ñëpp dañuy bàyyi seen i yitte ñëw fii fas yéene yaatal liggéey euh, liggéeyub sëriñ bi. liggéey la boo xam ne bañ ko dooree ci at mu njëkk ma euh, muy 2018 ba léegi ñu ko ànd ak sëriñ Mountakha Mbacké di ko ñaanal mu gën fee yàgg lool te gën a wér ndax dafa nekk liggéey boo xamante nii ndax euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy nekk fii ci Touba euh, dëgg la naam ñëpp mënuñoo ak si résidence waaye ñi ñëw résidence tamit ñëpp mënuñoo dugg ci salle bi nga xam ne fa la ñuy amee njàng mi moom moo tax ñu organiser ko noo xamante nii même presse bi bu leen bàyyi ñoom rek ñu dugg ci salle bi day fees moo tax ñu organiser ko noo xamante nii kenn ku ci nekk foo mën di nekk moo xam ci biir réew mi ci bitim réew da nga mën a am signal boo xamante ni signal neutre lay doon nga mën a diffuser li nga xam ne moom mooy am ci biir salle bi te mbatuwaay yëpp ñu jël ko ba nga xamante ni liggéey bi euh, yoon murid moom ñun ñëpp ay taalibe tey liggéey def nañ ko noo xamante ni kenn ku ci nekk dana jàppale sa morom ci loo xamante ni moom bëgg na ko te mënu ko am ndax euh, weeru koor nekk na weer woo xam ne événement activité yi day bëri lool ci dëkk bi di Touba te amul benn organe boo xam ne mën ngaa matale lépp amu fi kii day jàpp fale kii jàpp fale kii bu ko defee ku ci nekk buñ ko boolee rek nga mën a am li nga xam ne moom mooy am ci dëkk bi yëpp moom moo tax liggéey bi ñu ko noo xamante ni lépp lii xew ci dëkk bi moo xam conférence yi la moo xam ndog yi la moo xam njàng mi am fii résidence la ak ak ak naafila yëpp danañ ko mën a am en temps réel donc mu nekk liggéey boo xam bu ñu rafetloo bu baax a baax baax di santaat bu baax baax nag ñi nga xam ne ñoom lañ ko àndal muy mboolem organe de presse yi surtout presse en ligne bi nga xam ne ñoom it à chaque à chaque fois dañ ciy def liggéey bu am solo. mu ne ñi ngi ci liggéey bi quoi ànd ceeg presse bi yëpp nag ndax fii ñëpp a ngi fi dëgg nekk ay jàmbaar baax a baax a baax daal ñi ngi sant yàlla bu baax daal. chaque année nag ba ko sëñ bi diglee ba léegi te nag duñ bàyyi mukk fii sëñ baa ngi koy digle rek ñu koy def ndax ñun moom ndigalul sëñ bi rek moo ñu fi bàyyi quoi ndigalul sëñ bi rek li ñuy wéyee. at mu jot bu bi sëñ bi joxee ndigal li waa Hizbut Tarqiyyah si liggéey bu am bi nga xam ne dañuy dundal koor gi fii si njàngum xasida bañ ko joxe ndigal boobaa léegi ñu ànd ko ñun mbokkitaal bi nga xam ne mooy site internet yi xam ne ñoo nekk si Touba yëpp di ko ànd ak si liggéey bi ak mboolem waa jumaa ji ndax doo xoolee salle bi ñu nekk doonut euh, njàngum xasida mi rek lañ fi jàllale waaye ñi fi toog ñëpp ñu ngi jàllale mboolem programme diine boo xam ne ñu ngi koy amal fii si koor gi mu ngi mel ne daare kaamil mu xadamatu xidma ak yeneen waxtaan yoo xam ne waxtaanu diine la ku ne gis na ni interview wala conférence bu am li fiy dajee ci ay ay caméra wala ay organe moom dana demee noo xam ne kenn du ko mën a gérer te léegi nii ñu koy defee nii day day ndimbal wala day tawféex joo xam ne xëy na suñu borom defal nañu ko ndax tey jii euh, di nga teg dispositif boo xam ne tey du jar télé yëpp du ñëw te boo boo ko installé ba génnee sa sa signal neutre moo xam muy RMTP wala boo amee signal faisceau wala wala nga joxe sa signal YouTube neutre boo xam ne fu waay toll mën koo am kon loolu day doon ndimbal loo xam ne télévision yëpp mën nañ ci mën nañ koo jëfandikoo yi ci biir réew mi ak bitim réew te qualité lay doon boo xam ne qualité bu bu fu HD lay doon kon loolu tamit xéewal la goo xam ne suñu borom defal nañu ko di ci sant Sëñ waa bu baax baax ci biir weeru koor gi fii ci Touba activité yi dafay bëri lool ba tax na benn organe ngir nga mën a couvrir activité yooyu yëpp du yomb liggéey boobule li muy bëri bëri benn organe de presse yëgul diisaay bi ndax doole yi ñu boole. fii nag moom ñi fi nekk ñëpp benn lañ ndax kenn ku nekk da ngay jël sa morom def ko ne sa bopp ndax doo xoolee jëmm ji nekk sama wet ni di Sëriñ Muntaxa nekk fii nekk sëriñ bi euh, yaatal nañu fi baax a baax ndax lu si bëri bëri si ak jàpp ndalam si la amee. loolu nag ñu ko siy sant baax baax di sant ne ñoom lañ fi bokkal nekk ndax liggéey bi moom dafay dafay dafay yomb daal nekk da ngay jël sa bopp def ko mm-hmm. loo xam ne manqué nga ko sa morom dina la ko jox loo amuti doo demee sa morom maam day mel ne sa say say fi loolu nag boole giñ boole nekk benn te lépp ñu seedal ko jëmi Sëriñ Tuubaa ji rek loolu moo waral lépp di ñaan suñu borom gën ñoo euh, sàmm dëgëral ñu ànd bi ba nga xam ne lépp loo xam ne pexam seytaan rek suñu borom mosal ñu si da nga ci gis booloo goo xam ne ñi nga xam ne ñi ngi fi booloon nañ ko ndax fii doo boo ñëwee doo xamee ku moom machine bi wala ku moom caméra bi wala ku moom micro bi wala ku moom lii lu waay soxla dangay ñëw jël bu fi libre nga jël yóbbu parfois dina am ngànt sax du mën a ñëw waaye ñi fi toog ñoo koy lancer direct day woote rek ne ah gars yi lancer leen ma gars yi lancer ko direct su paree ñu arrêté ko kon nag loolu moom loo xam ne ñiy yëngu ci presse te nekk ci dëkk bi war nañ cee jàngee ndax ak booloo la goo xam ne ci daal lépp ci weeru koor gi waaye it baatinub liggéeyal sëriñ bi moo ko moo ko indi daal. suñu borom dimbali nañu ci ba mboolem chaîne yi nga xam ne tey jii ñoo aju ci yoonu murit nga xam ne mbirum sëñ Tuubaa moom moom mooy seen mooy seen mooy seen guddeeg bëccëg lëkkaloo nañu joxande seen loxo euh, ngir mën a couvrir événement bi kon mu nekk liggéey boo xam ne ñëpp ko àndandoo nekkul almuride rek déedéet waaye almuride yaa ngi fi Bichri ngi fi Lamp Fall TV ngi fi mboolem chaîne bi ndax ku lim juum waaye du ma du ma lim waaye ñëpp daal ñoo xam ne ñëpp a ngi ci. ngir mën a euh, joxante joxante suñu loxo couvrir événement bi fexe ba mu mën a mën a jàll ci mboolem chaîne yi. fii ci grande mosquée bu Touba ñoom it jël nañu ay matuwaay yu am solo ci wàllum yaatal mboolem activité yi fi am jëm ci conférence yi naafile yi ak ndog yi ñoom it ci seen régie bi nga xam ne moo nekk ci biir jumaa ji dañuy génne benn signal neutre mën koo jox mboolem organes yi nga xam ni dañuy bëgg a diffuser mboolem liy xew ci biir jumaa ji. comme ni nga xam ne noonu lañ ko baaxoo def ci weeru Euh, xam ngeen ne communication bi nga xam ne mooy daayira Muxaddamatul Xidma dafa jël ay matukaay yu am am solo ngir euh, waxtaan yi nga xam ne moo fi am moo xam naafile la moo xam waxtaan la moo xam dog yi nga xam ne moo fi am danañ fexe ba mbooleem organes yi nga xam ne ñoo nekk ci gox bi ak yi nga xam ne nekkul sax ci gox bi fexe ba ñëpp mën koo am ci anam goo xam ne anam bu gën a rafet gën a baax lay doon euh, gis ngeen ngeen yéen a ngi ci fi nga xam ne mooy euh, saalu euh, technique bi euh, fii la xam ne yi jàll yëpp fi nga xam ne fi lay jaar doo koy jàll fi nga xam ne moom la site yi nga xam ne mooy mooy topp ñooy am liens yi nga xam ne ñoo fi ñoo fiy jugee ñu mën koo am ci anam gu gën bépp site wala télévision bu bu bu jokkoog barab bi rek danañ ko yónnee lien bi nga xam ne mooy transmettre direct yi nga xam ne moo fii moo fiy jar. nit ñi dundalee koor gi fii ci résidence Xaadim Rasoul njàngum xasida gu yaatu lay doon loole laaj sonorisation bu mucc ayib te am doole moom moo tax waa daara Hizbut Tarqiyyah jël nañ ci ay matuwaay yu am solo ngir kuréel bu ci jàng bu ne son biy génn mën a mucc ayib. li war njëkk na def mooy ci li war kër sëñ Tuubaa gi fexe woon ba haut-parleur yi waroon kër sëñ Tuubaa gi. Euh, ci biir euh, mbaar mi nga xam moom lay jàng tamit fexoon nañ boo xam ni defoon nañ ci ay retour yoo xam ni bu nuy jàng euh, jàng bi dina nit ñi dina mën a dégg te du leen sonal yenn sonn di leen te du leen sonal. de wàllu installation yi daal wax dëgg yàlla defoon nañ ko noo xam ni fépp fépp bépp nit boo xam ni nekk na ci kër sañ Tuubaa gi bu dul ci biir kër Sëñ Tuubaa gi sax biti biti boo nekk ci biti rek. fexe nan ba xam ne boo nekk ci biti avant ngay dugg ci kër Sëñ Tuubaa gi fexe nan ba boo nekk ci biti di nga dégg njàng mi. waa sonorisation seenub liggéey yem rek ci génne li nga xam ne mooy am ci njàng mi waaye dañ ci boole ay animation yoo xam ne ci journée bi dañ koy def ci yenn waxtu yi. bu nu xëyee dañuy jëkk def animation buñ animation mi daan commencé midi bu commencé midi ba une heure dañuy arrêté pour arrêté buñ jullee tisbaar pare nu continué waat bu continué ba 4h20 nu arrêté. diggante boobu nag euh, doo amal animation léegi nag diggante boobu bu ñu jullee takkusaan pare léegi dañuy daal di xaar nekk waajal kuréel bi war a jàng bu ko defee day fekk ñu dañ leen suñu a pare. kuréel boo xam mooy gàttanu sëñ bi foofu tamit amoon nan micro boo xam micro asef moo fa nekk boo xam bu bu ñoom mi ñuy jàng jàng mi day génn biir salle bi tamit fexe nañ ba xam ni ñi fiy jàng ñëpp fexe nañ ba jël suñu matuwaay ba xam ni kuréel bi. Euh, nombre bu mu toll rek amoon nañu yéene kenn ku ne dafay am micro xam ñun limu limu limu trente personnes lan njëkk naa jàpp ci nga xam ne moom mooy kuréel bi. am na kuréel yoo xam nag du mën a mat trente personnes ay vingt huit lay doon wala vingt sept matuwaay yëpp jëloon nañ ko ba nga xam ni lépp loo xam ne laaj na ko ci waa kuréel bi def nan defoon nañ ko. léegi éléments yi nga xam ne moom ñooy jege kuréel bi fi ñuy jàngee. loolu seen liggéey lu am solo la ndax euh, kuréel bi suñ suñ toogee daanaka ñoom du mën a orienter seen bopp micro yi léegi éléments sunu yooyu nga xam ñooy nekk jege jege kuréel bi ñoom bu kuréel bi xasee toog rek ñooy orienter micro yi ba nga xam ni léegi nit ki suy jàng dina mën a jàkkaarloo micro bi ndax nit ki su fekkee day jàng te jàkkaarloo ak micro bi wala micro bi sori ko léegi qualité son bi nga bëggoon doo ko mën a am. mooy waral léegi euh, élément sono yi di di di sës ci kuréel bi ba pare kuréel bi du toogee am ñoo xam bu ñu toogee tamit dañuy xaw a dese fat te son dafa nekk loo xam ni boo farluwul ci wàllu kuréel bi moo na fàtt ak micro mën na la jege yooyu yëpp bu amul rek. li nga bëgg ci qualité son bi day des. mbooleem événement yi am ci dëkk bu sell bi di tubaa ñu koy tasaare ci àddina bi yëpp jàmbaar yi ñoom ñoo koy liggéey lépp ñu boole ko mu doon benn booloo gi nag su amee kenn rek lañ koy sante muy Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou xalifa général des Mourides ñu koy ñaanalaat mu gën fee yàgg lool te gën a wér.